kilifa ak murit yépp di ñaan sunu boroom yàggal ko wéral ko kàttanal ko dimbali ko ba li mu yéene liggéeyal lislaam yéle ko liggéeyal borom Tuubaa mu amee ko ni mu ko bëgge yàlla nañ ko ànd ak moom loolee it dañuy ñaanal ki nga xam ni mooy sunu kilifa ñun ñi nga xam ni ñoo féetewoo bitim réew muy sëriñ Mamoor Mbakke Murtada di len nuyu nak ci turu fondation Cheikh Ahmad Bamba te jëwriñ ja nekk ci kaw di Serigne Fallou Samb di len nuyu yit ci turu mbollem jëwriñ yi nga xam ño nekk ci kanami mbolo yi di liggéeyal Serigne Touba fi ci amerique ak Canada fas enya ñëw ak yéen tey jii waxtaan ak yeen ci li ñu tuddé hadiyatu rahma salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa lan mooy Hadiyatu Rahma Hadiyatu Rahma programme la boo xam ne nii fondation Cheikh Ahmadou Bamba moo ko taxawal ren jii la am ñetti at ñoo ngi ci ñetteelu campagne bi fondation bi dañ doon jànkonteeg ay jafe-jafe jafe-jafe yoo xam ne ci situation boo xam ne yenn saay bu tiisa tiis la lay lay doon ci waxtaane ko sax d'abord muy loo xam ne ñun ñëpp ñu ci ëpp dafa mel ni dañ ko ragal Euh, mu naqaree wax yenn saa yi muy wàccub liggéey jullit bu fi taalibe fondation bi comité social da daa di dox di euh, majjaal di xool nu ñuy def ba kooku fi wàcc liggéey ñu yóbbu ko ñu ko ci yenn saa yi mu metti yenn saa it euh, mënu mën naa wax ni sutura si nam mar a demee du demee noona ñu xalaat ne ñun kat war na noo mën a indi ab programme programme mu ndimbalante ci suñu biir loo tax sax baatu hàddiya hàddiya boobu ak jàppalante muy baatu raxma boobu yërmali googu mën a firi loola waaye tur wi moom boo ko déggee dana la wóor ni lii moom

mooy li nga xam ni mooy tax ay xalaat yu révolutionnaire xalaat yu am solo di judd kon ci cadre boobu rek ci la Hadiyatu ma juddoo waaye bu mu juddoo it ñu gis li nga xam ni def na ko ak fi mu féete mbooloo mi ci wàllu nooflaay ci wàllu sutura ci wàllu mën a gaaw delloo képp koo xam ni jóge na fi asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah rahmaani rahim man la madame Salla Fanta di rakk ci Seyba Konaté denk Florida di boroom këru ummi mi génn àdduna ummi fay génn àdduna foofu tempa aux États-Unis mardi 7 octobre tey mardi tey altine ci guddi ñu daj ñu jot kooram grâce à fondation Cheikh Ahmadou Bamba nord america di sant yàlla di gërëm di soññ sunu mbokku taalibe yi ci fondation ak njëriñam pasteefam ak taxawaayam ci néew yi nga xam ne dëkkuñu Amérique dañ fa wàlliyaan ut si fa ba dee fekk leen fa ñu bàyyi ko xel bokk ci bu ko defee euh, yu mel nii niñ taxawu biñ ci am gaaw bi mu gaaw macha allah ci benn semaine ñu di leen sant di leen gërëm ci turu waa kër Oumy Faye ak waa kër Seyba Konaté ci Tempa. E mbooleem képp koo xamante ni bii itam déglu nga suñu wax ji nga xamante ni bii waa yaakaar nañu waa fondation Cheikh Ahmadou Bamba dinañ ko véhiculer partout et nga ñaanal leen ñaanal leen ndax kat moom. foofu la wékku woon alors bi nga xamante ni bii événement bi am na maanaam suma dom bi bi ñu ko reyee fële ci G kenn jiituwu leen fa bi affaire bi amee alors euh, dans la matinée bi ñu xale bi daanoo avant dix heures ñoom ñëpp ñu nga foon taxaw ci taxaw comme ñëpp taxaw bon man dama xaw bari lu ma tukki gis naa lu nekk mais bi ma demee ba gis ni loolu ñu def foofu maanaam di cotiser cotiser ci seen biir ba nga xamante ni mbir bu mel nii bu amee ñoom ñëpp ñu jóg ci souligner naa leen ci keroog euh, jumaa ji nga xamante ni fa lañ daje woon ni leen lii lu rafet la lu baax la parce que mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole. surtout bu fekkente ni bii dañ ko organiser ah gis naa ni nag organisation bi ci sama gis-gis lu rafet la tax na bi bi ñu waree jóg jóg nañu bi ñu waree def def nañu waaw loolu mooy li nga xamante ni bii moom laa amoon di ko wax jëmbe jëmale ko ci fondation Cheikh Ahmadou Bamba boobu. vraiment di leen gërëm dellu ak di leen gërëm parce que c'est une bonne organisation bu fekkente ni bii euh, noonu ma gisee nii noonu la ñuy doxale surtout kuréel bi nga xamante ni ñoo nekk rali ñaan yàlla mu jëm kanam ñaan yàlla mu jëm kanam parce que euh, ku sa bët xonq rek ñu ñu jàddi jóg ñëw taxaw di jàppale la ci rapidement euh, koor yi duñ taxaw foofu bon loolu daal baax la di ñaanal fondation Cheikh Ahmadou Bamba bi bi Amerika bi di leen ñaanal seen taxawaay rafet na te di leen ñaanal yal na leen yàlla fay te yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla yokk leen xéewal yal na yàlla may leen wér taxaw leen bu baax a baax si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen liggéey rafet na ndax mbooloo mooy doole te wax la dëgg yàlla taxaw ngeen ko bu baax a baax gis nañ ci ay façon façon koor façon bu ñu bala ñuy ñëw mu yàgg lool lu ne nit ñi xaar ko ñii di xaar ay weer ñii di xaar ay 20 jours ñii di xaar 15 jours wande bi macha allah macha allah tabarakallah fondation Cheikh Amadou Bamba wonɓe to America ma di ala ko be mbaɗani so neɗɗo mayi Amérique ne jooɗo lebbi didi taw arani jooɗo lewru taw arani kanko ko mayi hande mo semaine fofo wada addama mi jogi ko association mabbe ɓe darani tan mo sellani ɓe darani tan ko maydo ɗon don be degla be gartira dum be dewa hen ɓe gala ñaami gala nyaago allah fondation sek amadou bam to america yo allah cuuno dum kala maa ngi tudd Serigne Ndiaye Diazaka nek fi ci Cincinnati Ohio bëggone ne indi rek ben témoignage bu ndaw bo xamne dañ ko dundu ak wa fondation bi nga xamne ci jamonoy koor la précisément le 6 mai 2020 sama kilifa di doon sama goro ci man euh, ñu koy wax Zakaria Fall dafi wàññeeku woon ci date boobu ma leen wax mu tasee li ñuy wax Covid 19 waaye ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ak xarañte ak Pastef ak njàmbaaru fondation bi wax dëgg yàlla suñu mbokkum taalim bi fi wàññi man mi nga xam ne maa yoroon dossier bi représenté la famille de Zakaria nga xam ne soxnaam sama wayjur la. di Soxna Jaañ euh, dañoo am mbégte euh, muy mbégte moo xam ne nag am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ndax euh, li nga xam ne mënuloo ko sa bopp taseeg jamonoy xat-xat yàlla def taw féex nga gis kuréel boo xam ne ñoom kat dañoo am lu leen boole muy imaan di pas-pas di diine ji wér nga xam ne ñooñu dañoo booloo xam ne kat ku nekk ci àll bi ñu koy wooyee musafir mu metti lool ñu ci bari gisuñu ndey ñu ci bari gisuñu baay ñu ci bari gisuñu sax mbokk moo xam ne xëy na buñ nee yëkkatee dara duñu am ku leen jàppale. courage bii nga xam ne dañ ko am ànd ak fondation bi nekk ci jamonoy xat-xat mu metti lool waaye ñu boole pas-pas yépp xam ne rek mbooloo mooy doole ñu boole lépp àndandoo nekk benn. ba suñ borom defal ñu tawféex ba ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñuy jël néew yi di ko yóbbu ci jamonoy Covid 19 bi di sant njiiti fondation bi ci kaw nag ba ci suuf bàyyiwuñu kenn wax dañoo bëgg lool. famille Zakaria Fall bi nga xamne aussi ña nga nek senegal ñu wax matu di cheikham bima jaka bima jotante ak mom semaine passée rek mi ngi naan man na ko santal wa États-Unis d'Amérique na ko santal daire yi nek euh, États-Unis na ko santal principalement fondation bi ndax kat def nañ liggéey bu mucc ayib man jaddum badaa mu melni ni ku ci bok bu yalla defee mara day yi nga wàccub liggéey ci diggante boobu fondation bi dana la taxawu nam la war a taxawloo euh, fexe ba ñu delloo la ca réew ma ci nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a sutureel bu fekkee ni loolu la say euh, loolu sa famille bëgg bu fekkee ni jàpp denc denc la fii la fondation bi dana ànd ak yow dana ànd ak sa famille seet na mu gën a rafete ñu ànd ko yow taxawu la ba denc la

daan ko toppatoo comme ni toppatoo euh, adulte yi nga xam ni ma wax nañ ko sànq euh, bu dee dan lay denc fii dan dan la denc euh, bu dee dan lay yóbbu ci réew ma dan la taxaw ba nga dem ci réew ma incha allah wa ilaa si képp koo xam ni bokk nga ci yàlla def nga génn Sénégal tukki beneen réew yàlla jële la foofa Hadiyatu Rahma mooy responsable frais yi lay toppatoo yëbbal lépp pour delloo la ci réew ma loolu it point boo am solo la ci biir principe yi nga xam ni moo nekk ci principal yi nga xam ne nii moo nekk ci biir hadiyatu rahma ku ci bokkit boo amee wayjur woo xam ne nii ñëw na woon seet si la fii wayjur mbaa soxna mbaa doom mbaa borom kër ñëwoon fii seet si la fii ba yàlla def mu wàcc fi bu liggéey loolu automatiquement Hadiyatu Rahma dana taxaw euh, jël responsabilité euh, ba fexe ba bu fekkee ne dangaa bëgg waajur woowu mbaa doom ji mbaa borom kër mbaa soxna si ñu delloo ko ci réew ma ñu delloo ko bu fekkee ne da ngay bëgg ñu denc ko fii it loolu Hadiyatu Rahma dina jël engagement wu euh, res frais yi wékku ci loolu lépp incha allah. waaw képp koo xam ne bokk nga ci te ne fii ci réew mi euh, sa wéyjur nekk Sénégal mbaa doom mbaa sa borom kër mbaa soxna nekk Sénégal wàccub liggéey Hadiyatu Rahma dana la dàmpe cinq cent dollars képp koo xam ni am nga fukki at ak juróom-ñett mbaalu ko man nga cee bokk boo ci bëggee bokk euh, amul nag euh, benn euh, différenciation képp ku di jullit rek ca bëgg cee bokk rek ca am fukki at ak juróom-ñett baa mu ëpp ko man nga cee bokk ni nga ciy bokk it moo di joxe 70 dollars ci at mépp kon hadiyatu ma jooju lañ leen di wax ni ñëwaat na ubbiwaat nañ ko indi nañ ci ay yeesal te lépp jëm rekk ci ak jàppandal ci képp koo xam ni yaa nga ca bëgg bindu mu mel ni ñu ci bari dañuy jaay ci daayira yi bu ko defee daayira yi it mën nañoo dajale nit ñi seeni membre bu ñu paree kenn ku ne soixante di dollars la su ko defee daayira bi mën koo verser moo xam mu def chèque moo xam aussi mu fay ca la nga xam ni moom mooy kartu daayira ba kon loola ñeneen ña nga xam ni it nag dañoo ne ci réew ma wala réew mu ñu mën a ne état bu ñu mën a ne te yàlla dogal bariwuñu lu ñuy dem daayira wala yu mel noonu ñooña it mën nañoo dem registré seen bopp waaye def nañ système bi noo xam ni fu fi waay mën a ne boo registré woo même boo jaarul ci daayira des na xam état ba te buñ ca àggee ba defar quartier yi su boobaa nag lépp dañ koy centraliser ca daayire ya su ko defee daayire yi ñooy distribuer quartier kon loolu it lañ ca jublu mooy même bu fekkente ni individu isolé la waaye ne na ca dëkk ba bis bu dara xewee daayire bi dana mën a information yi ba mu àgg ci fi nga xam ni moom mooy ak it ci fi nga xam ni moom euh, hadiyatu rahma lillahi qad Euh, ren nag euh, addiyatu ma am na soppeeku yoo xam ni euh, yu yu ndaw la boo ko comparé ak règle yi corrigeroon daaw yenn saa yi situation dana am mbokk jullit ab taalibe wàcc liggéey ñuy àndandoog famille ba di toppatoo nun ko nun ko yóbboo waaye yenn saa yi ñu am ci ay jafe-jafe famille bi duñu jox contrôle à cent pour cent ci ni ñuy xoolee condition yu ñu koy delloo ci nu mu gën a jàppandee ci fondation bi nu mu gën a gaawee ci fondation bi tàmbali ci jóg di seet ay funeral home yoo xam ne yu jàppandi la di xool ay airline yoo xam ni yu jàppandi la mais yenn saa yi famille bi am seen bëgg-bëgg personnel loolu nag de bu amee Euh, fondation bi dana am foo xam ni falay yamale boppam bu plafonné na li muy jox famille boobu muy six mille dollars beneen soppeeku bi ci amit ren moo di yenn saa yi danañ gis ay membres yoo xam ne dañuy bokk ci euh, Haddiyatu Rahma bokk ci beneen programme bu xaw mel ni nuroog Haddiyatu Rahma boobaa nag ñun suñu euh, taxawaay moodi bu fekkee ne membre boobu yàlla def na mu wàccub liggéey fii ñun li ñuy ñaan mooy ñu toppatoo ko ñu jox nu possibilité ak euh, responsabilité ñu toppatoo membre boobu lan war loola moom ñu def lépp toppatoo ko ba mu dellu ca ca réew ma waaye bu fekkee ni beneen programme booba maanaam moo ko toppatoo euh, ca ca du ci suñ coobare booba it xaddiit raxmay du du du seetaan noona dana dana jël trois mille dollars dàmpe ko famille membre boo ba nga xam ni dafa bokk ci Hadiyatu Rahma ba bokk feneen ñoo feneen foofa toppatoo ko leneen it moo di euh, euh, leeral nañu nit Hadiyatu Rahma responsabilité mi ngi yam ci bu membre boo xam ni da cee bokk wàccub liggéey li ko jëli fii ba yóbbu ko ndakaaru fa foofa la responsabilité Hadiyatu Rahma yam la koy jëlee ndakaaru ba fa mu jëm wa ilaa bu dee benn ci biir réew ma la mbaa ci beneen euh, réew lu demee ni Gambie Guinée Mauritanie yooyu yëpp euh, famille ba mooy am responsabilité frais yooyu ñun responsabilité Hadiyatou Rahman Dakar la yem loolu it loolu euh, leer la leneen li ñuy bëgg a wax it moo di ñu sàkku ci membre yëpp ñu liir lii ma doon wax lépp di ko farañ fànce ci wolof mi ngi ci mémorandum bi bind nañ ko mbind mu leer en anglais euh, bi am na it benn boo xam ne en français la kon boog euh, ñoo ngi leen di ñaan ngeen liir ko euh, signé ko ku ko liir ba signé ko loolu dana nekk firnde boo xam ni yow comprendre nga li ci biir nangu nga it charte yi nga xam ne fondation Cheikh Ahmadou Bamba të të tëral na ko pour bokk ci Euh, programme bi. mu mel ni ren ji boo ko xoolee euh, wuute na ak la amoon daaw ak daaw ji ndax ren képp koo xam ne yaa ngi ciy dugg dafa am lu ñuy tuddee online registration foofa it boo fa demee question yu simple la yoo xam ni sëñ Modou Mamoun dana ko expliquer bu gën a leer. soo leen jotee link bi ci WhatsApp walla si ngeen gis ko ci euh, Facebook soo leen si Euh, cliquer rek fii lay ñëw di ngeen gis registre Hawdiyatu Rahma di ngeen gis ñaari drapeau nag premier drapeau bi mooy drapeau États-Unis deuxième drapeau bi mooy drapeau euh, Canada drapeau États-Unis bi soo su nekkee États-Unis nga dëkk wala ngay registrel kenn ku dëkk États-Unis fii drapeau États-Unis bi ngay clique soo cliquer registre rek bu si wetu drapeau États-Unis bi daf lay indi si adiyatu rahma mooy soixante-dix dollars soixante-dix dollars yi nag moom euh, moom ngay fay soo nekkee États-Unis soixante-dix dollars US euh, euh, soo nekkee Canada soixante-dix dollars canadien donc soo ko cliquer rek dem next daf lay laaj sa tur nga remplir sa tur sa turu jëkkër walla sa turu famille sa email address, sa telephone. choisi euh, donc yangi dek États-Unis remplir sa adresse état bi nga jógee si adresse bi ak sa turu jabar su nekkee da nga euh, jabar wala jëkkër su nekkee da nga marié après su nekkee da nga am dom jo xam less than 18 ans Ko am 18 ans ak liko ko ëpp da ngay registré sa bop. donc so bindee loolu ak emergency contact bi rek clique fi, après dem si payment bi si souf moy. paiement soo bësee pay next rek mu yóbbu la si pay bi ok si paiement bi euh, sa soo dugalee sa carte numéro carte bi expiration ak code bi nekk si ginnaaw rek ak sa zip code directement paiement bi moom du jàll si beneen partie wala benn kii day dem directement jël kii bi te lii moom kenn du mun a utiliser sa carte tant que yow du yaa ko tappal sa bopp dugalal ko sa bopp sa information yi ben yon lañ koy jël te duñ ko garder ak ñun donc euh, ça veut dire que chaque fois suñ bëggee fayeeku sauf so bësee euh, soo bis boo pas programme bi amna na yeneen programme yoo xam ne mun nga select recurring mais programme Adiyatou Rahma bi fi mu nekk nii benn yoon lañ koy jël duñ garder sa information duñ garder sa lépp donc duñ garder dara donc euh, ça veut dire que yow kese yaa yore sa information kenn mënul utiliser information pour def si dara donc euh, euh, vraiment am na sécurité bu bu bëri daal soo fayee ba pare nag moom na la yónnee si email bi nga joxe donc su nekkee yore nga sa email mun nga ko xool foofu su nekkee emailu keneen la moom mun na la ko xoolal wan la ko ne recevoir na ko loolu rek la jërëjëf. kon tey jii loolu leen doon indil euh, campagne bi tàmbali na depuis le 31 mai di la jeex di jeex le 31 juillet ñoo ngi ñaan mbokki taalibe yi ngeen ñu tasaare ko. Euh, rawati suñ mbokk jëwriñ yi jëwriñ yi ñoo ngi leen ci woo di sàkku ci jëwriñu fondation bi kenn ku ci ne nga euh, euh, joxoñ ñu kenn nit boole ñu kenn nit mu mu représenté nu ci état ba nga ne ci chapte yi nekk fa nekk fa kaddu Hadiyatou Rahma nekk suñu interlocuteur ba nga xam ni ku bu ñuy wax moom la ñuy waxal bu dee benn ba ñaar nit kon it loolu ñoo ngi koy rappelé jëwriñu fondation Cheikh Ahmadou Bamba lépp ci daayira yi lay sukkandikuwaat kon Sonatrach mu ngi noonu euh, liggéey baa ngi noonu tàmbali na euh, ñoo ngi ñaan nag ci barke euh, Cheikh Al ñu ànd koog yéen ci at mépp kenn bañ fee manqué kenn bañ koo yittewoo bi jaay Cheikh Al kon kàddu yooyu laa doon yëkkati ku ci bëgg nag lu la gën a leer mbaa lu leerul nga bëgg ñu gën koo leeral soo ma contacté ci numéro bi 215. 370 26 97 daan la ci euh, indil ay euh, tontu ak ay leeral yoo xam ni euh, danga ko gën a comprendre bu baax kon ñoo ngi leen di nuyu di leen tàggu ci kàddu yu mujj yi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يقني عن سر من قرآن قرأ هدمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم القلق يا من